sëriñ bi ñëw indi leen nuyoo bu bàyyi ko ci xalifa général des mourides a cheikh mouhamadul muntaxa yàlla na ko fi boroom yàggal te yeggale ay yéeneem te ñu ànd ko ak moom mu indi leen ba tey nuyoo boobu nga xam ne daf koo jaare ba tey ci cheikh mouhamadul bachir ibnu a cheikh abdul xaadir mi nga xam ne mooy yor kàddu yoonu murid am ci taxawaay bu xam ne àddina bépp xam nañ rafetaayu taxawaay bi mu ànd ko itam ak euh, seen jëwriñ jooje muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom seen Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne wàllu liggéey bi ci loxoom la ko comité d'organisation Grand Magal de Touba teg ci loxoom ñu ñëw fii nag ngir lan ndigalal si Ahmadou ba li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha jox Serigne Mouhamadou Mbacke si mii mu war koo jëme ci mboolem réew mi loola mooy lan benn karawaan boo xam ne bii mu ngi tudd xaafilatu iqtifaau asaari cheikhil xadim muy benn karawaan boo xam ne bi day gëstu walla muy xeeñtu walla muy feeñal wala muy jéem a wane jeexit ci Ahmadou Bamba ci mboolem réewum senegal ren ji nekk juróom ñetteelu at mi kilifa gu mag googee nag digaloon kilifa gi nga xam ne mooy moo jiite karawaan bi mu bokkoon ci lan mooy jéego yooyee mooy jeexiitu si Ahmadou bàmba tafsir buuba si lay fii ci ci la wunte di fab nuyoo boobu nga xam ne mi ngi jaaree sëriñ Mouhamadou Mbacke si di ko teg ci eh, sëriñ Sumbul Silla mi nga xam ne mooy jëwriñu eh, sëriñ Mad Silla mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Boubou Sylla di ko tegit ci sëriñ Moustapha Sylla mi nga xam ne mooy porte parole bi kon nag ñëw nañ fi daal ci tànk yooyu ngir di xeeñtu jeexit ci Ahmadou Bamba beneen bi ci desaat mooy ñu fàttali lu kenn fàttewul muy grand màggal de Touba muy bis boo xam ne bii suñ lépp ci la jagee suñ àddina ak suñ alaaxira suñ borom mi ngi ko dogalee mu jagee ci bisub màggalu Tuuba sëriñ bi wax ne nañ ko waajal bu baax waxit ne mi ngi fàttali la sëriñ Abdul sëriñ Balla Faali Jeng la sëriñ Malick Bassine si waxoon si Abdul Karim Jeng moom sëñ Balla Faali Jeng sëriñ bi nee na mi ngi ñu koy fàttali ndax dafa yegg si jamonoom sëriñ Balla Faali Jeng daa joxoon taawam bu baax boobee sëñ Malick Bassine si mu nekk fa ba di ko yewi booba ma nga ma nga ma nga bàmbu sëñ Bali Faari Jeŋ mi ngi Tuubaa ba mu ko yewi da ko wax ne ko boo demee na nga ma nuyul sa sa baay sëñ Balla Faari Jeŋ te waxal ma ko ne ko sëriñ Maalik Baasin si nee na bul dalal gan bul dalal gan nag boo ko waxee day nekk lu yéeme waaye sëriñ Tuubaa nee na ca Masaalikul Jinaan waxi wàllu yi ba la jaaxalee waxal la Abdul Wadul waxoon rek ñoom ñoom lañ man man laa kalaamu lawliyaayi lastu afhamu li annani ana ana wahum humo sëñ Balla Fary Dieng bi mu ko waxee ba daane def ko ne ah yow day doom li ma sa baay jubla wax xamoo lu mu doon daal ne xam nga lu ma sa sa baay jubla wax mu ne ko ah sëñ Balla Fary Dieng daal di yëkkati loxoom bu tedd ba teg ko ca dënnam ba daal di koy wax ne ko sëriñ Malick Bassine si damaa jubla wax ne ma li sëñ Bamba def ci man doy na bu ma ci dolli dara dara dara dara dara dara kon na nag Cheikh Mamadou Mountakha nee na nañ jàpp Serigne Touba te bañ ko booleeg dara dara dara dara mooy suñu njëriñu àddina mooy suñu njëriñu àllaaxira wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nibachodin wa jaahim ni salaam xinil bala wa barakaatu sëñ Modou Mbacké si noo ngi lay nuyu ci turu Serigne Madi si la mi nga xam ne moo di jëmmi sëñ ci la tafsir tey ci kaw suuf yaa mbooleem ñi nga àndal di leen siyaar di nuyu mboolem sama bokki taalibe yi fi teew jataay bii nu teew sëriñ màdd am na rakk ju topp ci moom ku ñuy wax sëriñ Baara Silla dafa nekk ci ay yite moo tax teewul fii gannaaw loolu kii fi teew teewee leen fi ñoom ñëpp muy sëriñ Sumbu Silla seen rakk la moo ak sëriñ Madd ñoo bokk benn waajur muy sëriñ Lamin si la mu jëkk a nekk xalifab sëñ ci la tafsir ah nu ah, mel ni nag waxtu yi dañ dul may li nu war a leeral waaye dañ ci coof rek li nu man ci sëñ ci la tafsir mi nga xam ne moom moom pàkk bi nu toog garab nag buñ la ne doom bi lu ko ci saxal mbaa garab gi ku ko fi jëmbat nga jóg dem ca car ya dul sotti da ngay andi garab gi ni ñu ko sampe ak ni mu màgge ba am meññeef sëñ ci la tafsir ci la buubu ngi ngi ngeen romb door a ñëw fii foofee la jóge ñëw sanc ci la gii ñett ñi nga xam ne ñoo sanc ci la muy buubu aysa ak móori aysa mag ak majama aysa majama may caat moom moo jur sëñ ci la mi moo jàng sëñ ci la tafsir ba mu wàcc ci loxoom itam alquran ba war a nekk ci toll ci beqi mu laxas dem sërif layloo ci sëñ sërif layloo mag ma am na fukki fa fukki at ak ñeent dafa yeggale alxuraan jàng fa xam-xam di ko demal àllarba ak dibéer waaye saa bu ñu formankoo mbéyam boppam dina ci semb am sàqum ñeent jox ko sëñ ci sëñ sërif layloo addiye te booba sëñ tubaab mi addi addi mi addi addiye feeñu feeñagul ci sayir ba keroog ko sëñ Sërif Layloo di muy war a ñibbi ci la da ko ne buubu si la mu ne ko si la mu ne ko ñaar ñaar yi ma lay bëgg a wax de dootul lu may làmbatu dama cee deesoog yàlla sama borom ba mu teg ko ci sama loxo moo di sama borom nangul na ma ci sa jëmm ji di nga gudd fan di nga am barke ñaanal ko mu ñibbi ci la bi mu ñibbisee ay magam la fekk ba bàyyee jeex nañu ba mu ñibbisee ba mu ba mu fa go ba mu fa xëyee dem ba sëñ sërif lay loo julee tàkkusaan dafa wax ne buubu si mi fi xëyee tey dey dinaa ci def listixaar ci cin la ndax nee ñu cin la ñu baax la ñu waaye fee mu jëm di bu fa nekkee ba weer yu def si déwén te dégguma benn cërëb diine buñ ko fa jox dinaa xam ne ci la dañ leen wax baax waaye des na buñ ko fi joxee benn cërëb diine nag dinaa xam ne lu ñu wax ci ci la ci baax ma nga ca ba mu ñibbisee ci la googe booba bàyyi buubu ko maam bu godd faal moo jiite ci la bi mu fii laataam ñaar fukki fan ñu julli gee ba sëlmal mu ne ku julli gee na ma ne ci buntu jàkk ji ba mu jullee ba génn ay doomi soxna rek nekk fi naam silla naam jaxate naam xuma naam jaane naam loo bi bi mu néew béykat ne leen jàmm rek laay woote bubu silla mi daa daa jàngi ba ñëw alxuraan ji mu jàng la jàng xam-xam bi mu jàng lanu jàng nun ñi kenn ku nekk taalib jàngoo ngay tàkk ci sa kër waaye nag dafa am lu nekk ci moom lu nekkul ci noonu ma bëgg suñ ci juboo nu teg ko ci kanam jàkk ji mu duñ jiite ana li nekk ci moom te nekkul ci nun lan la ñu ne ko ah, mu ne danoo gën a ragal yàlla aw tagg mag magu ko ñu ne ko loolu si la dëgg la mën ne ko buubu mu ne ko si la mu ne ko jàkk jàngu deenu jiite bi mu demee ba yàlla dogal barkeem luus ndax booba boo baree dong yooyu jàngal sa daara rëy mooy barke booba maam njaga mi mu bokkal ndey ak baay maam njaga mooy baay li sëñ fu bàyyi sëñ njaga mooy mag sëñ ci la saf si mu sant sëñ ci dëkk bokk ci mu ne maam bu bu koddu gune bu barke baree barke da nga koy buux mu jóg fu mu dal di yokku di yokku askan wa buubu si la mii nañ ko génne ñu ne ko buubu daal yow da ngay seeti foo dem ndax tëgg yi ak wuude yi jógee kabay ñëw ji tuub ci noonu te bàyyi ay cër dañ leen jox sa tool yi yaw miy gune nga toog te seet noo def moom fu mu dem gor fa ba doyal ka mu àndaloon ndeket da ko coup d'état ne ko damaa foogoon ne yaa ma mag waaye ndekete maa la mag kon maay moom dëkk bi nga jiitu te kooku amul woon ku ko goral gorul woon tam sëñ ci la moom du xëccoo daray àdduna mu ne ko kon léegi rakk war naa liggéeyal magam kon bàyyi naa la lépp bi mu dellusee di waaje waaj dem penku lañ ko ne fa wuntu fay nekkoon àll boobu kenn moom ko raat na fii séréer bu ñuy wax wuntu fay moo fi nekkoon mook jabaram képp mu ñëw fii di gor ak dongo yi bu ngo bu ngooneem fanaani ci la ba gor lu ko doy doy dëkk sëkk mu sañ dëkk bi boo déggee ñu naa ci la ak wunt wunt ma fi nekkoon tax ñu di ko ci dàkkental mu nekk fi mbooleem buntu kër yi ko fekk si kenn ku nekk ka sañc buntu kër gi daa ñëw ne ko man de si la foo dëkk fa laay bëgg a dëkk damaa bëgg a dëkk ak yow may la buntu kër may lay tool mu léebu leen léebu riis ne leen ku yor sa fasu naaru góor yafal ko ñetti at nit ñi duggi néeg di tëdd nga takk ko war fas yéenee fanaane dox ka mënta ñàkk dem ci dëkk ba ngay dem tey doxa ko tànk warta warta biddanti te bi lay góor di ngeen def ni man Amadou Bamba mii ma jëm gisuma ko waaye woote bi yàlla woote bi yàlla des ko des ko wujji daaru man la fekk sëriñ bi ci Touba ba mu ñëwee ba ba néew moom mu ne ko ana noo tudd mu ne ko buubu si la sëriñ bi ne ko Babacar la ana looy lu lay sànq mu ne mu ne wuy si woote bi yàlla ndax topp yàlla jamono mooy nungul borom jamono gàntu yàlla ci jamono mooy gàntu borom jamono te jamono ji sama borom baaxee na ma ba xamal na ma ne ci sa loxo la ko teg may wuy si woote bi yàlla sëñ bi ne ko sëñ ji la xanaa xamoo ne man na ngaa bere te woote koy ñu topp la mu ne damay bañ a woote ba léegi du ma xam fu may jëm du ma xam fu ma jëmee ña ma toppal sëñ bi laaj ko baat boobu ñetti yoon wax mu ne ko bisimilah loolu nga jëm loolu nga loolu nga bañ de am na ñu mu xiir sa dal bu ëllëgee xam nga noo fi ñëwee. mu ko xam noo fi ñëwee. ne ko umbale sama bopp moo tax ma dina ko jébbal si mu ne ko baag bi jigéen di mujjee jukkee ci tiyaan teg ko def ko ci ndamam yenu nu ko wolof tuddee mu ne ko filax filax gu ne yéen ñi ko xamoon mooy fecc li mu ne ko loolu rek la ñuy def ci yow fees del nga fi ñëwee ba ko téye ba di ko yi ne ko Babacar si la dikkal dellu boo demee la nga nekkoon ba nga ma gisagul yàlla gërëm na ko rasulullaay gërëm na ko gërëm naa ko digal naa la nga dellu ci sëñ la sëñ ci la amul yeddeel sëñ ko lépp baax na mu jébbalu mu gën a baax ngeen may nu ak déglu sëñ ci la ñibbisi fii nit ñii di ko sargal mu ne Amadou Bamba ma ma demoon day téléwuma digaluma dama ne dellul ca la nga nekkoon waaye billaahi góor maa ngi leen laatal ci alxuraan ak darajaam moom ba may bàyyi ko su ma xamoon ne dinaa gis ku toll ni moom ci kaw suuf jox ko sama bopp mu nungul ma ko li ma daj ci daara ji du ma ko daj ndax ba may jàng xam nu may jaamoo yàlla ndax ma am ngërëmal rek te kii ma gis ngërëmal yàlla yàlla teg na ko ci loxoom kon damay sàkku ji ngërëm ci moom rek mu gën a gaaw def yitteem jëpp muy sëriñ Tuubaa da daa def bu ñu génnee siyaar njaarim bu siyaare sëñ bi génne sëñ Lamine sëñ ci Lamine mu ne ko si la ne ko sama sama yoon wi jëm ci sëñ tubaa bu ci am ñax sax ndax lii ma jëlee ci sëñ tubaa dama koo andi fii samp ko muy njëmbat njëmbat gi lool ñu du ko yéem màgg gi gën koo gaaw ñuy yéem màgg gi mu dëwu doon ker goo xam ne daa xaddu ci toogee doo jant bi ñuy yéem ker gu neex gi mu roof ca meññat mu neex daal ne ko am garab booy féexloo am ca doom booy lekk nag di ko dundee war ngaa wax alhamdulilah waaye xam nga lu koy suuxatam mu ne ko déedéet mu ne ko sëriñ bi addi ji jàng nii dikk na sëñ baa ngi leen sant di leen gërëm su ngeen ko saxoo lii ma jëlee fi seen garab gi du gooy mukk ngeen day sàkk day meññ ngeen sàkk su ngeen ko deful nag bu garab gi booy yéen càkk sëñ Lamin ne ko dimbali nu si la boog bu garab gi mukk mu nekk ci sëriñ tubaa di dem ak dikk ba am benn bis sëriñ Lamin nee na dem siyaar bi ñu siyaaree ku ku dee siyaar na sëñ bi waxtaan di dellu ni ci yàlla bàyyi mu si gis ne ana sëñ ci la ñu ne sëñ ci la mooy sëñ ci la tafsir mu ne Mbàkke mu ne ko rendu sil sëñ Lamin nee na bi bàyyi raamee maa ngi raam topp ci moom lii ma wax sëñ Lamin may dégg na ba mu yëg si ba sës ci baraag bi sëñ bi da ko ne santal yàlla sa borom mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu del ne ko santal yàlla sa borom mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu del ne ko santal yàlla sa borom mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ko yàlla na nga sant yàlla de ndax sama borom xamal na ma ni da ngeen dëkk àjjana ba dese kër yu kenn dul dëkk sëñ laa bi na ko nett li te moog bàyyi ma àndoon fortaatu fortaatu ma ko ci mbedd mi bu la ne sëñ Tuubaa nee na ko may naa lay mbooy ci àjjana waxul ñu wax da ko ne sama borom xamal na ma ne di nga dëkk àjjana ba dese kër yu kenn dul dëkke yàgg ku la yaakaar tekk ji yàgg lool sëñ bi mel ni koy dellu si ne ko sëñ xam nga kër yooyu noonu de mu ne ko billaahi mbàkki umpul na ko mu ne ko ana béykat bu bari suuf sàkk ay dëkkam ba ñu doy ba ñu doy may leen ba ñu doy la des ci suuf bu gisul ko wooye lu mu nu mu koy def mu ne ko wacc mu boy mu ne ko di nga dëkk na àjjana yàgg lu aj ci yow ndax li la yàlla jagleel ci kër ca àjjana amul mbooloo mu ko dëkk loolu tax ñu naa borom mbooy àjjana mbooy moom fi mu toog sax li li mu toog rek ak mbooy la sëñ ci la nekk ca loola di dem ak a dikk dem ak a dikk ba bisu àllarba ci fukki fan ak ñet ci weeru tabaski 1927 ci deux heures et demie la nelaw fii ci pàkk bi Issa mi doon jëwriñ ji nag moom dikk ci sëñ Lamine ne ko sëñ bi lay noppal na mu ne ko ah mu naaw mu ne ko demal wool ma lay mu wooyu sëñ lay mu ñëw mu ne ko demal wooyu lay fu lay fu bàyyi sëñ jaga mu ñëw mu ne ko demal wooyu sëñ jaay ma xewe si mu wooyu ma xewe mu ñëw mu ne ko oto bi jag naa mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko màggat dama bëgg nga ñëw yóbbul ma sama sëñ jaay ma xewe njaareem moo waxal ma sëñ ma sàmba ne ko sëñ ci la nelaw na te maa ngi ciy laaj ndigal boo ko waxee sëñ ma sàmba dina ko wax sëñ bi nee na bi jant bi daleñ di war a la nu yegg njaareem bi nga ko waxee ma sàmba dane Lamine de xam na baayam sëriñ bi du nangu ñu rob ko foofu da koy laaj de waaye nag leen ba mu ubbi bi mu ubbee sëñ Massamba jiitu ñu topp ci moom sëñ Maguette nee na bi nu ñëwee sëñ Massamba noo ngi dégg li bi wax waaye gis nu ko ndax dafa ëmb euh, palanteer bi ak ak daaraam nu tukki ci ginnaaw mu ne ko Lamine de fi yenn fere yi nee na daan noppal ah, ne ko mu ne ko ñu ngi nii ci sama ginnaaw nañu dem ne ko ko waajal te yët ko te Massamba nga wax ñëpp nañ ko nañ ko teeru te bi jënti ko jëmma ngooguy ñëw ma ma day lott ci fa mu jëm taxul ma di ko laaj ndax fa mu jógee ba keneen muy ñëw fi ma a ràmm ñu fi ne sëñ Masamba dox tuuti mu woo ko waxaat ko loolu mu doxaat ba ca tànk mu woo ko waxaat ko sëñ Masamba tàng tàng ne na ma leen booleeg tarika yi tarikat yi bu ñu demee tiim koy jàng ba ñëw fukk ak ñaar yi daa ñaar sëñ sëñ bi góor gi yibra bu bëggee ay bay bay yus ndaw ak ñoo ña àndoon ñoo ñëw fii fukk ñaar sëñ ma Masamba yebal ñu nekk ci oto bi ñëwee fekk ak jaaxle am fi réew mépp dagg ne sëñ ci la dañ suñu bakkan lañ ci teg dañ ne réew fii lañ ko rob pàkkam bi sax lañ ko rob daf koy yóbbu ca xabru sëñ Lamine jaaxle lool Matar Ngoy boobu mooy chef de canton fii la ñu wax moo war a fas ne sëñ Lamine negoon ma dimbali la war a fas la di door ne màggat arrière topp ci man màggat di arrière topp muy dóor nit ñi daanu ba mu sës sëkk ci nit bi ñu ñu ñu jël rob bi tekki sëñ bi ne ko boo demee ba diggante xombal ak kaneen xël gu mag fa nekk tar nit ñi topp nañ ko ba ñànge mënuñu ko dem ñu dem ba ñu demee fekk sëñ ma Masamba sëñ bi na la ko bu ñëwee na ko aafiya taxawe te ñu rob ko ci bopp xabru yéete bu ko dara féete kanam ci njaareem bañ ko robee ba del si sama nee na dem naa ba bëgg a wax sëñ bi ne ko laamin de dara mat la wax dem leen waa ji te dëkk seeg yàlla seen borom ba mu ñetti yoon mu a ko alhamdulilah Mbacke mu ne ko sa bàyyi moos eh, dama doon xalaat bu yàlla dikkee nii ñu yóbbu ko Tuubaa loolu daa doon xalaat waaye biñ may wax mbiram daa yemoon mbooleem ruuy rob fii di ma laaj ku ma leen defal liimaan barsax te mat na ko moo tax man nañ ko def ca kanam bëgg dara féete daal ne fii am na yilimaan fee it lee mu am yilimaan loolee di alxames fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski waxtu tàkkusaan ki wa dee tam xarit wa teelu fukki fan yaag juróom-ñeent sëriñ bi ñibbi Tuuba sëñ sëñ may sëñ sëñ ma sëñ sëñ Moussa Ka marsiya ba mu def ci sëñ kii la leeral na ko bisub keroog ba mu faatoo Bamba daal di ko rob jur bel ne mooy yilimaan barsax sant na keroog eh, ci waa dafa wax ne ci aw tabaski la ruux ak Babacar ne meles aw tam xarit Bamba dem Touba li lee di balaa keroog la àdduna ñàkk ab jant lépp lëndëm seen wéer suux seen yu dee fàq li kaso la ay woyu bare la waaye lii nag li tax ma man koo waat samay mag sax boobu génne wuñu àdduna danoo liggéeyal sëñ sëñ Fallou ca Bogo ñeenti ñeenti quarante six sanu yóbbu kilifa guñ jox ab tool bu jeexee nga yiwi sa mbooloom dikk fa sëñ Fallou ne ko tool ba yegg na yiwi naa mbooloom nun defuñu loolu ñeent oto yëpp saa bu nu yegalee dañuy dikk ne ko mbooloo maa ngi ni ci buntu kër gi tool ba yegg noo ngi laaj ndigal noo fa gaawu dibéer altine talaata yoo nu xëy dem dëkk tool Moustapha Lo ban dellusee mu ne tool bi ci euh, saw bi moo fi des ci liggéey dem leen yeggale ko te néeg moo fa mu jëlee tàkkusaan di leen fek nu def koy gar ci saase ñu ne ko am dara ci sëb yóbbal na nga ko génne bu sëmi ñëw siyaar ñu dara najal ci yooyu jamono ba muy ñetti junni ñu fas ko ci mosaar boo bàyyi léegi mooy xalifa sëñ ci la yebal sëñ jaga mi topp ci moom ma ànd ak mbooloo mi ñu jox sëñ Njaga xaalis ba ne bu ñëwee ñett képp nañ ko jox loxo bàyyi Njaga sëñ Ibra sëñ Mat ñi ci des ñëpp nañu toog mbooloo mu sëñ Fallou jë tugg nag bu ngeen bëggee am la bëgg la ngeen neex da ngeen naa tekk rek bu ngeen ko bu ngeen tekk rek dina baax ñëpp toog sëñ bi dawal oto ba ci suñu biir mu ñoom ñu ko ba nag mu ne waa jageen jëf def ngeen lu mat a def liggéey sëñ Tuubaa a def fu ma dem liggéeyal sëñ yóbbu lii may wax moom dama ko fekke daal di joxoñ dugub yi ne tool dugub yi ngeen gis njaboot ak sëñ Tuubaa gi rek laa koy dundee tooli gerte yi itam jumaa ji yegg na waaye dafa am miir bees ko war a warale moom laay fàggu fii daal ne sos sos sos nag sëñ Tuubaa ko man sos nun na mën noo sos waaye mën na noo sof te may leen ngeen dëkk ba dëkk àjjana waaye mbooy googu ñaraas naa ko def def ni kenn nettali ma ko dama ko fekke